tey euh, ñoo ngi fii nga xam ni moo di kii euh, Sen TV fa seen fi fekk ki nga xam ne moo di diggee euh, Cheikh Sarr li ko waral tey muy téléthon bi nga xam ni ñu ngi ko rek fa seen muy première téléton ci dem si yàlla lay Mbaye mu mel ni tey tey teew na fi tam fa seen a jàpp ci liggéey bi la diggee Cheikh duñu la téye lu yàgg ñu ngi lay wax salaamaaleykum. waaleykum salaam yaa Seydi ñu ngi lay nuyu di nuyu internet yëpp di leen jox seen wàccuwaay li wax nga ko Ablaye Mbaye la ñu fas yéene mottali yéeneem waaye di ko def ci ndigalu suñu kilifa di euh, oustaz Iran Ndaw mu Ibrahima Badiane moom mi nga xam ni moom moo jiite Grand Cœur di ci liggéey liggéey bu am solo donc nag ci wàllu euh, euh, liggéey bi nga xam ni moom la sumb muy jëlee nit ci lëndëm yóbbu ko ci leer loolu bu ñu ci woowee ñun dañ ci am xol bu sedd guy lañ ci am ndax dañ boo dañ liggéeyal yàlla lii nag dafa nekk mbir moo xam ni mbiru bépp doomu aadama la. kenn ku ci nekk boo xoolee mbër yi bu ñu toogee dañ naan dama bëgg teral suma yaay artistes yi la même chose koo dégg da ngay ni ma bëggee sama yaay fi ma toll suma yaay Ablaye Mbaye nag nekkoon koo xam ne ndaanaan la ci musique sénégalaise liggéey fi liggéey bu am solo kenn mosu koo dégg ci lu ñaaw kenn mosu koo gis ci lu ñaaw ay wayam it boo ci déglu album bu mu mënta woy ak fu mu mën a wayee musta way mbooyu mboosóor lépp lu mu woy rek luy yee doomu aadama la waaye tamit luy bégal doomu aadama su amee yéene boobu ba yàlla euh, jëlee ko fi ñun ñii yàlla bàyyee ndi ñu fi war nañu mën a mottali yéene googu moo tax ma naan képp kuy doomee aadama waxuma jullit waxuma musicien waxuma mbër waxuma képp kuy doomee aadama rek te yàlla ma mën loola jëlal sa dërëm dugal ko ci ndax boo jëlee sa dërëm dugal ko ci jàppal ni yaa ngi liggéeyal yàlla te dërëm boobu mën na leeral sa fii leeral sa fële waaye tamit ci Euh, initiative bi nga xamante ni si oustaz Iran Ndao jël na ko te bi mu ko nee càpp wax réew mi yëpp dañu nangu ne na na ko def na ko def waaye tamit ci ndimbalug président Bougane Gueye Dany ñu ngi ñaan nag sénégalais yi di leen talal loxo li yaakaar naa ni ñun ñëpp buñ ci jógee matuñu sax 24 heures donc bon volonté yi ñu leen di woow ngeen jàpp ci lu ngeen mën tàmbali nañu liggéey bi tey am nañu jote joxe am nañu dig te ñu ngi xaar ñëpp te am naa yaakaar ni samedi bii ñu dikkaat incha allah balaa samdi bi yaakaar naa ni li ci des mën naa ba ñu bari te yaa Seydi wax na ko sànq Ibrahima Badiane wax na ko nee na ginnaaw ñu ngi dugg ci at muy jeex te azaka yi day da da ciy am solo azaka yi mën nañ ko dugal fii rek su boobaa ëllëg boo rombee kër gi daal ni kër gi kat mos naa ci dugal sama ñaq te kër googi it mën ko ci dugal sa dërëm yàlla tabaxal la kër ci aljana yàlla ñu ci boole. Cheikh duñ la teye ndax yaa ngi presque ci yoon te yaakaar naa ne presque téléthon bi rek coono la euh, fi may dellu si rek fi may tëjee muy mbokk artistes yaa ngi leen doon woo euh, mel ni tey xëy na dafa mel ni yëngooguñ ni ñu war a yëngoo tam yaa ngi leen di woo mu mel tam ni ko euh, naataango bi waxee rek Iran Ndaw oustaz na ko ba ñu ayee moom tabarkal la yëngatu nañ lool mm-hmm. mu ngi leen xaw a sax di di di jam tuuti mm-hmm. fan la artistes toll nag war nga leen woo nag loolu nag loolu nag Iran Iran daf ñoo jam daf ñoo jam du ma dafa jam artistes yi man ci artistes yi laa artiste dafa yaatu boo ne artiste musicien bi ci la mm-hmm. artiste peintre bi ci la kii def théâtre ci la mm-hmm. kii def musique ci la artiste maçon sax ci artiste la bokk ndax da ngay ñëw fekk fu dara nekkul nga nga nga nga nga déformer ko waaye nag artistes yi nag moom ci branche bi nga xam ne ci la ñu war a waxee mooy musiciens yi c'est vrai que ni Iran Ndao nag jam nañu jam nañu jam nañu ñun artistes yi te bëgg naa tamit ñun artistes yi ñu wane suñu bopp bu ñu xam ne ñun ñoo ëpp doole ci sax ci la wane suñu bopp ndax keroog bi ci suñu mag suñu oustaz euh, nekk ci lëndëm lëndëm muy Tayib soose ay nawleem oustaz dañoo jóg sot xeex génnuñu semaine boobu ñu génnee cent millions cent millions te yaakaar naa ni bu fekkee kër yu rafet yi artistes yi ñoo ko dëkkee bu dee oto yu rafet yi artistes yi ñoo koy dawal waaye bu dee tukki tukki yu sori yi bu dee bu dee saal yi gën a mag ci àdduna bi artistes yi ñoo fay way te ay millions ñoo fay génn ay milliards a fay génn donc yaa Seydi oustaz Iran Ndaw jam nañu te nag bëgg naa nag ñu naani incha allah nañ ñëpp jóg bu kenn xeeb dara ah, man yëf yi comme dafa ma bett nii rek bi ma ñëwee jot naa dugal dix mille waaw te incha allah bu ma dikkaatee dugalaat dix mille dugalaat dix mille dugalaat dix mille ba ba ñuy joxe caabi ma dugal dix mille mu yàggee dina mat un million de incha allah yàlla mottali yéene ñu ngi leen di jaajëfal. Euh, digee Cheikh Sarr ñoo ngi lay sant jàmm gi info nga mu ngi lay jaajëfal. maa ngi di jaajëfal salaamaaleykum. jàmm info waaye nag